ala المسني وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي mbokk jullit yi mbokk taalibe yi sëriñ bi agsi na mi ngi ni jàkkaarloo ak yéen mi ngi leen di asalaamaaleykum ci diggante mbokkum taalibe ak mbokkum taalibe ndigal lu bàyyi ko Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér wàcce suñu jëwriñ di Serigne Cheikh Mbacké moom suñu platif ngeen jël adde yëpp teg ko ci loxoom Serigne bi wax ne mi ngi sant bu baax ci taxawaay yi ak yitte ji mi ci taxawaay bi ak yitte ji rawatina jéego yi ngeen def ba ñëw toog fii jàkkaarloo jëmmam gii di leen xamal ne seen jataay bii seetlu na xolam bu yi waaye daal na xelal waa ngir ngeen doon di yaakaaram Mbacké di sa njabootu bopp di njabootu sëñ bi ñu nekk ci ay gox yu fasantikoo yoroon liggéey Seexul Xadim doon ko sayt bu liggéey bi mag ñu andi ko teg ko sa loxo nga tàmbalee liggéey sëñ Tuubaa bi daayira Miftaahul Sahaada di njabootu Serigne Djili Pouy Serigne Mara Gueye yi ko sayt ba bi mag ñu andi ko teg ko sa loxo nga tàmbalee liggéey sëñ Tuubaa bi kon mbokk jullit yi mbokk taalibe sëriñ bi sant na bu baax ci taxawaay yi ak yite ji rawatina jéego yi ngeen def ba ñëw toog nii jàkkaarloo jëmmam jii di leen xamal ne seen jataay bii seet na xolam buy waaye daal na xale waa ngeen dolli yaakaaram mi ngi gën a fedd di ay laxasaayam di ko gën a ànd ak yéen ba faaw di leen ñaanal suñ borom dimbali ñu ba ngeen daje tawfeex sëñ Tuubaa seen lépp di yomb seen lépp gën di yewén seen lépp gën di barkeel na ñëpp tàll seen loxo ba suba jàmm incha آمين آمين آمين بقى نعم آمين سبحان الله آمين بقى سبحان الله آمين بقى آمين آمين بقى نعم آمين te bu ñu noppee ne ñëpp dellu ca mbaaru Maam Jaara ba xewal ba nopp soog a yeewee ba loolu mooy ndigal yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di ñaanal xalifatu am bi nga xamante ni bii moom la leen siyaare sëñ Muntaxa Mbàkke di ñaan sam borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér yàggal ko fi lool te ànd ak wér moom yàggal fi am na mën a benn Fall mii xalifa maam Seera Fall mu yàggal ko fi lool te ànd ak wér yàggal fi sëñ Fallou wasi la ak jëru Cheikh Moussa yàgg fi lool te ànd ak wér di amat mbégte gu rëy goo xamante ni bii fekkaat nañ fi sëriñ bu mun taxaa di ñaan yàlla di ko fi yàgg fekkaat waat ñun waa daayira Miftahoul lii nag day firndeel ni liggéey bi nangu na ndax ba nga fiy jógee daal da nga ñaanoon yàlla fekk déwén yàlla dimbali ñu nag ci baaxam may ñu fekk waat déwén tey jii nañ ñaanaat di ko fekkaat ay ati ati ati at ci barke Sëriñ Tuubaa Cheikh Fall ab taalibe moom bu liggéeyee ba liggéeyam nangu mooy boo ko joxee sëriñ bi addiyee mu nangul la addiyee kon mën ngaa njotti na sa addiyee sëriñ bi nangu nang ko kon na ñi ngi ñaan yàlla sa daraje Sëriñ Tuubaa si barkeb addi ji yàlla na aajo jaam yëpp faju ki nga xamante ne mooy suñ jëriñ yàlla boole ñëw moom ni Cheikh Mara Gueye yàlla na sa borom guddal fanam wéral cëram kattanal na ko te wéral ko bu baax ndax Mara doon na koo xamante ni ku baax la ku lewet la ku yaatu la ku bëgg daayira bi la kon nag li ñu man mooy di ko ñaanal sa borom guddal fanam wéral cëram bu baax a baax a baax ba li mu si mbooloo mi suñu borom dafa ko lu kawe suñu jot di waxaale rek ne euh, am nañ cant goo xam ne dañ koy def le 4 janvier ci kàttanu yàlla Khadim Gueye moo koy jàng ñu ngi ci wokk mbokk jul bi yëpp mbokk taalib yi yëpp loolu dañ koy njukkale sëriñ di ko sante sëriñ bi sëriñ Saliou bi nga xamante ne bii moo na ñëwoon sama loxo mi ngi si biir kon nag lu lox suñ sëriñ loxo suñ Saliou nekk moom kenn ku ne xam ne saasu su ne day day day yokk te siyaar bi nga xamante ne moom lañ siyaar ren ji di 2024 kenn ko ne yëg nga xam ne ziaru baatin la amul booxoo amul xuloo amul dara ñëpp dañoo toog benn place jàkkaarloo sëriñ bi mu ñaan ajo yëpp jaam yëpp faju kon yàlla nañ ko yàgg fekk yàgg ko ànd si daraje suñu Tuubaa Cheikh Fall yéen ñi nga xamante ne nag yéen ay jàllale wax yi yéen li ngeen bëgg seen liggéey bi yàlla na Sëriñ Tuubaa dafa leen lu kawe seen jot barke Sëriñ tubaa barke maam Cheikh Fall kontaan nañu lool ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam ba déwénati incha allah rabbi